Karim wax nañu démb. ngeen ne day ñëw. maa ngi loolu laa doon fàttali wax nañ ko démb. dina ñëw na militant yi taxaw mobiliser préparer ñëwu Karim si fan yu néew. Karim Wade dina ñëw Sénégal. lu tax lu tax du ñëw. lu tax Karim Wade du ñëw. Karim mais pourquoi ngeen naan Karim ndax dina ñëw. pour lan du dañ ko namm. moi je serais ah, très ravie justement su ngeen ko nammee raison de plus raison de plus pour ngeen nañ ko gàttandu moo tax ñu ni xam nañ ni ñëpp ko namm moo tax ñu ni gars yàq nañ suñu campagne Karim allait venir avec beaucoup de pétrodollars léegi nag campagne bi dafa naroon neex gars yàq nañ suñu campagne mais on veut le voir dara weesuwul ah dara weesuwul mais mais vous confirmez pour ñun le PDS rien mais et rien ne sera jamais perdu vous mandataire vous donnez waaw. votre parole aux Sénégalais que Karim va venir à Dakar avant l'élection Karim dafa ni il demande à tous les militants yaa ngi may dégg. Hmm. Karim dafa ni il demande à tous les militants de rester mobilisés parti bi dal di ni coalition bi daal di ni militants yëpp ñu taxaw mobiliser xaar les mots du parti xaar les mots de la coalition. préparer l'arrivée imminente de Karim qui va venir porté la combat avant les élections moo tax gis nga militants yi seen bopp Sénégal koo waxal dafa ni na Karim ñëw comprendre man mandataire bi loolu lay jottali parce que ñu ñu waxal ñëpp ci biir Sénégal képp kuy wax ci Sénégal wax ci diaspora bi dafa ni Karim na ñëw mais loolu mënuñu ko tan xam lu Karim su bëggul woon ñëw sax day ñëw hmm. waaw